سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دومو دبي هل في الورى من سكن المصطفى ورث الخديم ولاية دمر باي هل في الورى من سكن المصطفى baaxoo jotaay bi day jox kenn ci kër gi mu jàngal nu benn discours ci discours yi nga xam ne cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke bu ma saan woote màggal gi wala lu ñu demee daana ko yëkkati loolu Serigne Mourtada Fall moom soxna ummi moom Serigne Modou Moustapha moo nu koy jàngal waaye suñu noppee danañu jox euh, maire dëkk bi muy Serigne Abdou Lahad Ka xam ngeen ne dafa am aw tiis ndax taaw waajuram moo wàccub liggéey démb moo tax kàddoom da koy jox kenn ci délégation bi mu àndal muy Serigne Birane Gueye waaye bu ñu noppee ci loolu itam euh, danañu jox kàddu gi sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne moo yor kàddu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wér mu yëkkati ay kàddu suñu noppee nag ñu jox monsieur le ministre maam na Dieng mu yëkkati ay kàddu yi nga xam ne moo jóge ci njiitu réew mi suñ noppee nag ñu door a taatan kàddu yi nga xam ne moo jóge ci sëriñ Amadou Muxtaar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xuddoos nekkal fi sëriñ Modou Moustapha ñuy ñaan ñun ñëpp ñu ñaanal ko suñ borom yàggal ko fi te wéral ay cëram kon kàddu yi noonu la fas yéene tëddee kon duñu def lu dul jox kàddu gi sëriñ Mourtada Fall moom soxna Oumy Mbacké moom sëriñ Mouhamadou Moustapha mu wax nu benn ci discours yi nga xam ne euh, sëriñ Mouhamadou Moustapha daana ko yëkkati ci bis bu mel ne bis bi muy bisu màggalu Daaru Xuddoos wala bis yu ñu demee sëriñ Murtada bismillah sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh amma baad fa inni usikum ayuha almuridun bitaqwa allahi taala bil ijtihaadi fi imtisaali al awaamir wa ijtinaabi nnawahi واعلموا أن الإرادة ليست بمجرد كلام فحسب بل إنما قرائن تدل على صحتها ألا وهي الصدق في المحبة والخدمة بقدر الوسع والحال فمن صدق في كل الشيء آثره على الغيب فيظهر في اللسان ويؤثر في الجوارح بالعمل بمقتضاه إن المحب لمن يطيع بسم الله الرحمن الرحيم dénk bi dénkaane bi nga xam ni moom dañoo tànn tey ngir waxtaane ko Cheikh Mouhamadou Moustapha daf ci doon soññ taalibe yi ci ñu war a taxaw ci liggéey bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa daf leen ko batale woon te loolu mooy liggéey jumaay Tuubaa yi mu tàmbalee ko nag di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal wax ni maa ngi wa rahmatullahi wa barakaatuhu ne nag maa ngi leen di dénk li ma leen di dénk yéen taalibe yi mooy ragal yàlla te ragal yàlla mooy topp ndigal bàyyi ak tere da ngeen xam ni ak murite wala ak taalibe du ay waxe kese képp waaye dafa war a ànd ak ay màndarga yoo xam ni mooy wane li nga wax lu wér na te loolu la mooy mbëggeel gi nga bëgg sëriñ bi na doon lu wér la ca topp mooy liggéey sa kem kàttan ak sa man-man la ndax kat ku ni dama bëgg dara loole nga bëgg bu bëgg wéree da lay gënal leneen lu dul moom bu ko defee mbëggeel googee dana feeñ saw làmmiñ ndax da ko wax nit da nga ko wax bu feeñ waaye dana feeñ ci say jëfit ndax da nga jëf lu cagtale ne yow lii nga bëgg lu wér ndax dañoo daal lépp ni ku bëgg dara ku bëgg nit ku nekk fokk nga topp ko kon nag ma nee su ne dama bëgg nit ba pare mu jëm penku jëw nga jëm soowu mu tekki ni wala tulkumu amwaalukum wa wala awlaadukum an zikrillah yàlla waxoon na bu yàgg jullit ñi ne leen seeni alal ak seeni doom bu mu leen soxal ba ngeen fàtte yàlla fala taxurrannakumul xayaatu dunya rikkawaay dunduk àdduna gii bu gàtt gi bu mu leen war mukk wala yaxurrannakum billahi alxaruur warkat bii seen diggante ak seen ngeen xam ni dunduk àdduna gii du dara lu weesu ay neen ak ko doom wa inna al axirata xayawaan alaaxira mooy dëgg-dëgg dund law kaanu yaalamuun suñ xamoon danañ xam loolu mu teggee yàlla wax ni la magfiratu min allaahi wa rahma xayru mimma tajmaun njëggaleeg sunu borom ak yërmande sunu borom moo gën fopp li ngeen di dajale muy alal ak i doom wa ridwaanu lillaahi akbar dalika huwa alfawzul azim ngërëmul yàlla lu mag loolee moo gën a mag lu mu te ngërëmul yàlla mooy taxe dëgg-dëgg taxe wa laqad sadaqakumu llahu wa'da yàlla lim leen digoon dëggal na ko lam leen waxoon ne dana ko def def na ko moo leen bind ci ak na meenam da koo neex ku bind leen bind leen itam ngir ngeen jaamu mu jox leen ay wërsëg yu ngeen dundee fii ci àdduna waaye bis dana ñëw ngeen ngeen faatu ni ngeen di nelawee du ngeen ko yëg ngi jekk-jekk ba jàng daal di nelaw booy faat itam noonu lay dikkee ni nga xamee ne boo yeewu itam da jekk-jekk yeewu bu ëllëgee itam bu ñu leen dekkal noonu rek ngeen leen leen bu ko defee nag bu ngeen dekkee ba def nag nag umma ilayhi turja'un ñu delloo leen ci seen borom fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun kenn ku nekk boo demee ci yàlla sa borom dana la wax la nga doon def la nga doon def dañ def ni kenn yëgu ko lépp sunu borom xam na ko te dana ko fàtt na xam ni jamono ngi ni joo xam ni fàtte fàtte fàtte gi bari na càggante itam bari na te bu dee foog mukk ne bu leen jot mukk ne yàlla li tooñkat yi def da caa amul soxla kon nag na ngeen tuub delluwaat yàlla seen boroom bala ngeen àgg ci bis ba nga xam ne kenn ku nekk dana am lu dodoy sëkk li kulli mri'in yow li kulli mri'in sha'nu yuxni gis dana ñëw koo xam ne kenn ku nekk sa mbirum bopp da lay doy sëkk war nag kenn ku nekk war ngaa góorgóorlu delluwaat ci sa borom bala leen ci musal leen di muccal bala ngeen balaa loola fii nga koy mën a wute bala ngaa ak foo xam ne nii mucc dootu amati góorgóorlu leen ci liñ leen digal bala ngeen àgg ci waxtu woo xam ne dootu leen ko mat ndax waxtoom day wéy te bokk na ci buum yi gën a dëgër ak sabab yi gën a wér ngir taalibe mën a mucc am lim bëgg yi dem fii ci àdduna yàlla dimbali ko ba li nga xam ne moom lañ ko tànnaloon ci jëf yu baax mu mën ci góor góor ñu wërsëgalu itam ñu wërsëgal ko toppiin rafet te bokk na ci seen texe gi gën a rëy te gën a mat yenn taalibe yi tey tax ngeen a gën a mën a am cër ba gën rëy ci li ngeen bëgg lépp ngeen góorgóorlu ci liggéey bii nga xam ne Serigne Touba digle woon na ko muy liggéey jumaa ji Serigne Touba moo leen ko digaloon moo ko digle woon waxoon ci làmmiñam ne ndigal la lu jóge yàlla jëm ci mbindeef yi daf jaar yoon bi sallallahu alayhi wa ñëw ci moom mu digal leen ko sëriñ bi ne leen dama leen koo jottali wa maa alayna illa al balaagu mubiin man nag dara ma waruma wees jot liñ ma dimbaloo mu waxaat des képp koo xam ne nii fees nga ci liggéey bii da fees feesaay boo xam ne dana la loo loolu lépp waxi bi la joo xam ne ñu baree bari ci taalibe yi dégg nañ ko ci moom muy wax joo xam ni da koo waxoon ngir xemmeem loo ngir bëgg ñu góorgóorlu ji ak loo xam daf koo doxloon ngir xuppee ngir wattandiku ku ci sàggal kon nag yéen murid yi na ngeen góorgóorlu bu ñi nga xam ni yàlla suñu borom tabaraka wa taala mi wax ñoom ci ni min al muminina sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man xada nahba fa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila yàlla nee na am na ci jullit ñi ñoo xam ne lañ digee woon ak seen borom lépp matal nañ ko ñooñee nag am na ci ñoo xam ne wéy nañ tey ci seen borom am na ñoo xam ne nag ñi ngi fi waaye dañ nekkoon duñ ci jóg te duñ soppi dara ba mukk kon nag bu leen soppi bu leen soppi inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du soppi ni muy nekkew nit ndaa rek du ñooñu ñoo soppi ko bu ñu soppi ko yàlla soppi ko waaye yàlla du soppi yàlla soppi lam doon defal waaye moom du soppi ko na ngeen def seen kem kàttan lu ngeen man na ngeen ko def ci liggéey bi ndax kat sëriñ bi digalul kenn ngir njaruñul boppam ku muy digal ku nekk daf lay digal ngir nga mën a li gën a màgg ci lam la doon digal nag bokk na ci liggéey bii kon nag kenn ku ne ci yéen nañu def kem kàttan li yum fi suudaati min saati فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها képp koo xam ne nii man nga am yàlla mayee na mën na la gan la nga mën lépp na ko ci def waaye koo xam ne nii sa loxo jotul sa gannaaw la nga mën a gis néew koo ko ndax yàlla tegul kenn lu mu mënut na ngeen góorgóorlu ci defar seeni diggante ngir ngeen mën a nekk kam benn loxo na ànd àndandoo doon benn kenn ku nekk ci yéen li mu bëggal li mu bëggal boppam na ko yéene mbokkam te ngeen di dimbalante ci lu baax dimbalante ci ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar bu leen dimbalante ci noonu na ngeen am at ya ak teggin ànd ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf te loolu moo di bàyyi lépp loo xam ne dana indi ay rëng-rëng wala muy indi ak yàq ci suuf ndax jàmmkat moo gën leneen lu dul moom kon yal leen yàlla fay yéen taal yéen murid yi nga xam ne topp ngeen digal yal na yàlla mottalul nu te mottalul li itam yéen ak motti leen itam seenu ngambeel seen bëgg-bëgg ci addu ak ci àdduna ak àllaaxira wassalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit yi mbokki lislaam yi fi teew yépp sëñ Ahmadou Makhtar maire commune Touba sëñ Blaat Ka mi ngi lay nuyu di la ziar di yeesal ak taalibe bi di am nuyoo di ko teg sa loxo ngir nga jottali ko ko sëñ Muntaxa Bachir mi nga xam ni moom moom liggéey bii mu yor ca porte-parole am di ndawam di sëriñ Basiiru Mbàkke sëñ Abdou Xaadir teew mi ngi jël am nuyootam di ko teg ci loxo maam Thierno professeur maam Thierno mi nga xam ni tey jii moo jiite délégation officielle bi fii ci Daaru Xuddus di gërëm di tàmbali nag ci di sant di la sant di la gërëm ci ñi ko boole lan muy comité d'organisation bi ndax ñépp xam na ni fii ci Touba organisation ak méthode Daaru Xuddus mooy école bi nga jiital ci sëñ usmaan mi nga xam ni ñépp xam na discipline ñépp xam na rigueur am ñu ànd ko ak autorité officielle yi fi ne muy le gouverneur de la région préfet département de Mbacké ak le sous-préfet de Ndam nee na gouverneur mi koy beral cant ndax bërki biig bi leen taw bi bettee ci guddi gi bi mu xëyee pratiquement dafa déclenché plan orsec régional ni fépp koo nga xamante ni bi mënees fa ñàkk dem te dox nekk fa luñ ci mën nañ ko def indi ay camions ñu tàmbali li ndox mi bari bari lañ man lépp def ko nee na mi ngi sant bu baax gouverneur ci loolu nga xamante ni def na ko ñi ngi ko boolee nag nee ñooñu dañoo ñëw ànd ak waa commune bi ndax fii di Daaru Xudoos ñépp xam na tolluwaay bi nga xamante ni bii am nañ ko ci Touba am nañ ko fee ca conseil municipal bañ fa nekk ndax saa su fa nit jógee Daaru Xudoos ñëw bu yëkkatee kàddoom rek wax ca conseil ba ñépp dinañ xam ni kii kat ci ñu jàng la jógee kii kat ci ñu xam la jógee ca loola nee na mooy ndimbalam moom ndax ànd ak ay nit ñoo xamante bi ñu ngi koy xelal ndax moom maire la dafa jiitu ci kanam waaye ànd ak ñu koy xelal di ko teg ci yoon wu baax baax yoon wa nga xamante ni bii ndimbalam lay doon nee na loolu mi ngi la ciy sant bu baax di leen sant ñoom ñooñu nga xamante ni bi ñooy conseil yi di sant nag conseil municipaux yi nga xamante ni bi yëpp teew nañ ndax bis bi day bisu Touba Touba gépp ñoo ko bokk du bisu quartier Darou Khoudoss waaye bisu Touba la bisu sëñ Touba la nee na képp koo nga xamante ni bii membre la ci conseil municipal bi tey jii ña ëpp ñëw nañu teew bi kon mi ngi leen di ànd ak ñoom di yeesalaat seenu njëbbal di yeesalaat seenu cant ci li nga xamante ni bii noonu nga xam ni taxawee nga ko nee na moom ci wàllu boppam nag mi ngi lay beral cantu boppam sëñ Ahmadou Makhtar ndax nee na moom doomam nga ko def nga ko taalibe yaa ngi koy dimbali yaa koy conseillé jant boo nga xamante ni bii am na loo dégg ci dëkk bi wala loo xam loo war a waxtaan ak moom doo yabal ndaw ci moom da naan nee leen ab laat na fi ñëw nee na su ñëwee nga waxtaan ak moom teg ko ci nee na bari na liggéey yu baree bari yoo xam ni ay nit dañuy jóge bitim réew di ñëw di ko liggéey si ci dëkk bi ca la ko la ko jur ak la ko mun sa loxo ma nga ca biir ca waxoo ca kenn déggu la ca waaye nee na moom xam na ndimbal loo xamante ni bii yaa ngi koy dimbali waa dëkk bi nee na fi muy ak kàddoom nag mooy sant président de la république mi nga xamante ni bii moo koy daf liggéey bii di collectivité locale ab liggéeyam ndax li gën a tey jii waa Touba gën gën koo yittewoo mooy ndox yi nga xamante ni bii ci kër yi la ne ak ndoxi taw yi ca loolu am na programme boo xam ne bërki démb rek la fi ministre bi ñëw ñu tàmbali ko ca ñëpp xam na ni nawet fi ne ni mu dem màggalu Touba day gën a dugg ci biir nawet kon ay facultés yu wér wér war nañ koo def ngir yii di ñëw ndax fu nekk nii ren jii rek jox nañu xam-xam ci lay ñëw ndax at mu nekk fi nekk nii màggal gi day gën a tàbbi ci biir ci biir nawet kon loolu tam mi ngi gën a diisaat boppam gën a diisaat dëkk bi autorité yi nga xamante ni bii wàllu assainissement dafa diis état moo ko attan tàmbali nañ ko waaye mu leen ci gën a soññ ndax wóor na ko ni màggal yi di ñëw 2019 2020 ci biir nawet lay doon ca bu boobaa fàgguteef yu wër yu mat sëkk moo mën a tax ñu génn ci mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi balu àq ñëpp jërë leen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi nuyu sëñ ahmadul muxtaar mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ moodu moustapha di suñ mag di suñ kilifa di nuyu mbooleem suñ bokk yi fi ne yëpp di siyaare mboolem ku fi toog di nuyu ci bisub Seex Muhammadul Moustapha bii mu doon defal sëriñ bi di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm yéen ñëpp Seex Moustapha mi nga xam ne mooy sama turandoo dama sant yàlla ci tudd gi ñu ko tudde bisam day tay jii muy doon jëmm joo xam ne nag kon dama ci seede seede su gàtt rek ndax Euh, moom daanaka lu soqel jot rek waaye waajalu ma woon dara dama ne woon sëñ Moustapha nañu ma jégal waaye sëñ Mourou Moustapha moom loo su soqel jot rek ci taarix da nga ci mën a ku seede doonoon na jëmm joo xam ne ni ko sëñ Abdul Xaadir Mbàkke daa ma waxee ne sa turandoo lu wax ci moom ci baax bàyyi nañ ci dara waaw loolu la loolu la ma daa wax lu ñu wax ci baax rek bàyyi nañ ci dara noonu la ko yàlla bindee woon doonoon na koo xam ne boo ko doon melal da ngay wax ne ku fees bopp la woon loolu doy na ci seere guddik talaata gi muy indi sëñ bi fii nga xam ne biñ koy yëg dix heures ci guddi war naa jot diggante boobu ku ci mën a lijjanti loolu ba ba lépp mën a taxaw bañ mën a indi sëñ bi ba mën a toppatoo lépp ba fajar laata jot lool ca waxtoo woowu ko xam ni jamono ja deme woon booba danga xam fees bopp sëñ Mourou Moustapha ndax booba ma sama di mu ne ma laaj naa ko ne ko ne ko waaw booba moom loolu noo ko defee noo ko mu ne ko booba de damaa xam ne fu tiis di àgg ma yor naa ko waaye nag dama damaa xam ne sëñ bee yoral boppam mbiram ma jóg rek dox jëm ci loolu <laughs> lépp daal di daal di ubbi ko daal di yomb léegi bu ko defee nag nga xam ne kon moom am na lu daje woon ci moom lu jafe mooy bopp fees dell ànd ak ak ak ak ànd ak ji basiiratu waaw maanaam li ñuy wax ku amoon gisu xol ndax ba muy laaj titre français bi ci dëkk bi loolu boo yëngu ba amutoon gis-gis xelit néew na loolu mu ànd ak fit ku amu fit la ndax bu amutoonu fit jumaa ji rek doy na ci firnde jumaa ji ci waxtu woowee xadd ko ak mboob rek yombut jiim ko fetañ rek yombut ku am sa xel di xalaat di ko xëcc muy mat téeméeri mètre ci waxtu woowa te booba ab dërëm mënta am fen ndax seex yi gën a naw booba leen sëñ Modou Moussa sas muy ku mel ne sëñ Modou Diop Samba ak yooyu mooy juróomi juróomi junni la sas yi gën na ndang booba foofu la tolloon kon xoo kooku xam nga ne gis gisu euh, loolu moo lay tegtal aw fitam ku am fit la ku am xel la la ca dolli ko nag mooy ku ku teeyoon la tanangoo diisoo daf daa wax ne bu ma juumee rek mbooloo juum loolu loolu la daa wax ndax sëñ Modou Gelangel daana ko nettali sëñ sëñ Modou sa balaa wax dana tegale ay guddi yoo xam ne ku ne dana wax ak yow bu waxee ak ñoom ñëpp nag mujj sëñ Basiiru waaye sëñ waaye dana wax ak sëñ Omar Mbàkke gelaw ngel ak sëñ Sëtu Jaxateek sëñ Mbay Jaxateek sëñ Laay Jóob leew naag mag ñooñu noonu leen di toppe bañ doon groupe gudd boo xam ne ku ne la wax ne waaw mbir di sàngam de laa doon xalaat ba xam yow dama xam lu ci sa xalaat bu ñëw ñëpp dajee xel yooyu mujj sëñ Basiiru ne ko yow lu ciy sa xalaat diw di doon na wax nangam waaye diw di doon na waaye yow li nga wax rek laay laay laay def loola dara fas loolu taxan na yàlla dimbali ko ba du ba du juum moo tax ma ne fu ma juumee rek mbooloo juum amoon na xikkam lool te mën a te mën a am lu man koo wax lool bokk na ci xikkam yi mu daa wax ma jëlee ko ci mag ñi dadaa wax ne nit bu la nit bu la bu fekkee yëmalewul ak kenn nga yemale ko ñëpp boo yeexee mu ëpp la ngor seetal loolu boobu xekkam rek daana waxe nit bu la bëggee na nanga koy mayu lay seet beneen xekkam a ngor dégg naa ci sëñ mu ne sëñ Mourou Sa mos na ko wax ne ko yet yet maa ngi la koy digal mu ne ko yet mu ne ko bala kilifa jegeelee jegeelee boppam na nga koy wattandiku ci yet mbóotam moom génnee gut ak alalam ju yees ju ne ak gan kum fonk <laughs> nañam foofu okulaha min wa antum bi xeyrin asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alqaili fi muhkami tanzilihi ya ayatuha alnafsu almutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julli yi teg di fi teew ak bokki taalibe muur di fi teew ci turu cheikh mouhamadou mountaxa ibnu cheikh mahamadou basir mi nga xam ne moo fi jëmmi sëriñ Tuubaa ci kaw suuf yàlla na fi yàgg loolu te ànd mu yóbbanteem nuyoo ci rakkam bi sëriñ ahmadou muxtaar mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Mouhamadou Moustapha tey moom it ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ak mboolem njaboot gi topp ci ginnaaw gépp sëriñ bi leen di nuyu di leen sant di gërëm ci bis bii nga xam ne moom ak yéen ñoo ko bokk wax ji du gudd loolu waaye faaw ñu seere ci ndax sëriñ Moustapha Fall bala ñoo dugg ci waxtaan wi rek ñu fàttaliku Cheikh Sidi Muxtaar ñaan suñ borom dolli ay leer te taasu ndax dëgg ni daaw ci ndigalam lañ màggale màggal gi ci teewaay ak fàttalikom kon bu suñ borom mu bàyyi ko tam des ci xel yépp faw ñu fàttaliku ñaan suñu borom dolli ay leeram te liggéey bi mu liggéey sëriñ Touba suñu borom fay ko ko ndax ñëpp xaj nañ ni Serigne Mourtada Fall wax fàttali ko ci discours Cheikh Mouhamadou Moustapha yi muy lu kiimaane loo xam ne dafa mel ne sëriñ bi tey la ko waxoon ñu war cee jàngat jàngat yu rëy yoo xam ne doy sëkk lii baraan ngay wax ci turu sëriñ Abdou Lahad Ka mi nga mooy meeru dëkk bi ci cant ci dëkk bi jëmale ko ci ñi fi teewal nguur gi ci njiital professeur Mame Thierno Dieng mi nga xam ne moo fi teewal président de la République Macky Sall ak kàddu yi mu wax ci dëkk bi yóbbaale na lépp ci mujj nag mooy suñu kilifa di Cheikh Mahamadou Moustapha ibnu nga xam ne kàddu yi mu fi wax daanaka jërtoon doon waa dara ndax wax ju leer la joo xam ne ku ko dégg dégg ko ci si biir xol ndax li sëriñ bi daa wax rek wax bu jugee ci xol dem ci xol ci xol lay àgg waaye bu jugee ci xol bu jugee ci xol jaar ci làmb rek ci day jaar ci nopp yi jàll moom nag yàlla defal na ko tawfeex ku dégg li muy wax xam ne li muy wax gëm na ko te mu koy dund moo tax fu mu waxee mu àgg ci xol yi di nuyu itam sëriñ Moustapha mu Cheikh Sidi Moustapha mi nga xam ne moo fi xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak mboolem rakk bi fi teewal ak mboolem njabootu Serigne Touba gi teew ci jotaay bi yëpp Cheikh Mouhamadou Moustapha nag faw ñu fàttaliku ci moom tuuti fàttaliku ci tuuti ci Serigne Touba ndax bis bii day bis boo xam ne moom moo ko woote woon di ko wooteel Serigne kon waxtaan yi mënu leen génn ñoom ñaar muy jëmm joo xam ne itam dafa marqué histoire lool. ndax yoonu murit tey bu doonoonu tabax Sëriñ Tuubaa moo ko ñaan ba suñ borom defal ko ko mu wax ni mu bëgg mel leeral ko ko boppam ne ko yoon wi de noppi naa ci lépp lu ma ci war dafa def naa ko maa ngi mel ne rab bi nga xam ne dafa defar ay séram ba mu jekk mu def ko ci barab fu adduna toll ak fu jamono toll rek ma génne ci yoonu sol kon moom Sëriñ dafa teel a wax ak moom xamul ko li mu bëgg bu doonoonu tabax nag maris naa wax ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko fandu mu nekkoon jëmm ju jàmbaar Sëriñ Tuuba suñ borom defal ko tawféex moo rakkab yu tedd Cheikh Mouhamadou Fadil ndax ñoom ñaar li ñuy wax al omari al omaray ni mooy Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil Sëriñ Tuuba loo de caa doon rasulullahi li ñuy wax ramziyatu zamani wal makaani wala zarfu chamani war makaani ñoom ñaar foo tudde kii sax xaw nga tudd ko jëlis ndax seen mbir dafa lënkalu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ñëpp xam nañ ni mu demee moom Cheikh Mouhamadou Bachir ko Serigne Moustapha waxee moo doon jëwriñam mboolem njabootu Serigne Touba gépp itam kenn ku ci ne cër ba mu la waroon a sédd ndax li tàmbalee ci Serigne Abdoulaye jëm suuf ñëpp manis wax ne moo leen toqi moo leen yar ñëppit moo leen samp kon moom moo fond yoon bi liñ ci fàttali nag mooy li ci jiitu mooy bi ko sëriñ bi di dalal fii suñ ginnaaw ci kër sëriñ Chouaïb ci Daaru Rahman moom ak Cheikh Mouhamadou Fadil ak sëriñ Umar Mbàkke golo gelaw ga sëriñ bi da wax ne li ma leen ci sas de ndax lii seenu liggéey mooy alxuraan mooy noonu buggee jàng waaye gaaw a xam ji ak bañ a fàtte moom seen yoon niw ci kon noonu leen sëriñ bi tàmbalee tërbiyee leen jàngal leen boole leen ak rakkam ji Cheikh Ibrahima Fati Cheikh Mahodou Moustapha ak Cheikh Mahodou Fadi lépp lu ab taali bi def def nañ daana wax ne gor naa gayet rabb nam per lépp lu ñuy def xaddina bi nekk moo Cheikh Maodo Farid bind na Sëñ Tuubaa téeméer ñeent fukki kaamil te kaamil bu ci ne dañ ko daa boore ak nekk ak nit ñi meletaari bi ba mu nekkee ca gànnaar foofu xam ngeen ne metti woon na lool ndax condition ya fa ne woon waaye ci njàmbaar ga ak bëgg positif la yëmut rek ci ne doomi sëriñ bi la waaye def dafa futtiku laxasaayu mel na taalibe yi yor melo taalibe yi mbaj njañ li nga dégg ñu di ko tuddi sax ba turu ndoom yu bari ñu la di wooyee njañ loolu ko indi ba mu ji Sëriñ Tuubaa woo ko ba mu ne ko xanaa bëgg doonu taalibe mu ne ko yow jaamu yàlla ci sunna lañ la kon boobu Sëriñ Tuubaa koy waajal noonu la Sëriñ Tuubaa nekkee ca ci yéen ci tërbiyewu bi lépp lu kon moom Sëriñ Tuubaa da koo waajal bu yàgg ndax bindoon na ne Sëriñ Tuubaa bindoon na ne def Cheikh Mouhamadou Moustapha mbindum loo xam ne teg naa ci na nga def Cheikh Mouhamadou Moustapha kilifa képp kum jamonoonteel ci kaw suuf kon Sëriñ Tuubaa waajal na ko bu yàgg moom ci boppam itam bi sëriñ bi di bëgg ñibbi borom ñibbi si Tuubaa booba ba mu nekkee ca ñaaxeen loolu ñëpp dégg nañ ko toog naa mbooloo ba caag mu ne ñokkee jug ànd ak Serigne Mor jàndam dox ay jéego yu néew ci biir tookoor ko li daa wax ak wax naa ak man te ay waxam dawul dañ nee boo xasee ba am ñeent fukki at doo fekkee ne Serigne baa ngi kon moom Serigne Touba da ko waajal lu yàgg. bi fi sëriñ Touba ñibbisee Touba it ñépp xam nañ ak njàmbaar ndax li ëpp solo mooy jumaay Touba ji nga xam ne moo jiitoon ci naari sëriñ Touba la ci Cheikh Mouhamadou Moustapha def ñëpp xam nañ ko ndax bi ko sëriñ bi wootee wax na ko ne na joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett taalibe yëpp dajale ko ba motoon juróom million ci yooyu jamono la ca xewoon ñëpp xam nañ bañ mayoon sëriñ bi autorisation diir bu gàtt tubaab yi dellu siwaat fii ci Touba dajale mboolam mépp ci kanamu Cheikh Mouhamadou Moustapha xotti xotti autorisation bi ngir bëgg ko gànnal ko ne waxi jumaa bëggatuma ko dégg Cheikh sépp jaaxle kenn xawul nooy def waaye suñ mu Moussa ca dal ga lii suñ Moustapha seere léegi mu ne tekki ba tubaab yi dem mu wax ne nu may def am ku waxal ba amaat autorisation bi lay xalaat mu dem ci tubaab yi wax ak ñoom tubaab yi wax ne autorisation mën nañ ko ko may xañ ko ko ni ñu koy may xañ ko ko it mooy autorisation aw kayit la waaye nag nañ ci teg condition yoo xam ne du ko mën a matal muy condition yu metti lu gudd la waaye lu tuuti laa ci tënk bokk ni ca condition ya dañ ko wax ne ko saxaar yi tubaab yi doon def mooy train yi yi ci ëpp seen projet àgg na ci muy Louga Linguère ak euh, neew ak Xaay kon ouvrier yi ñu doon liggéeyal yóbbu nañ leen Madagascar kon li ci des mooy faw nga wut sa ouvrier bopp yoo xam ne yaa na ngi tànn te daañu ma junne ak juróomi téeméer te duñ doon ay nit ñoo xam ne nit ñu yooyu la ñu doon ndax liggéeyu saxaar yomb ne ko itam fépp foo xam ne jaar na fa mbooloo mu koy liggéey lu ñu fa yàq yaa koy fay yaa koy garanti barab bu mu jaar te ñu anduñ ci ndax ci ay tool lay jaar la leen di indemniser yaa koy joxe te liggéey bi itam contrat bi juróom-ñaari at lay doon bu àggul ci diggante bi mboolem loo ci defañ ci xaalis danga koy perte ndax dañoo am yeneen liggéey Cheikh Maodo Moustapha ca fitwa ak njàmbaar ba nangu lépp ba mu dellusee nii ñaam ca jaaxle mu ne leen lii dellu yomb la ndax liggéey bii ma Sëriñ Tuubaa sant de bu fekkoon te ne damay soole ji soldaar door ko def danaa ko def mu woote ba mu wootee ñëpp daje lii sëñ Moustapha wax Cheikh Mouhamadou Bachir xelal ko ne ko ni ngay def mooy nañ tànn ci seex si ku ne joxe ay nit ba junne ak juróomi téeméer mag fa sansa ki nga xam ne ak njàmbaaram ci yoon wi kenn mënu ko natt muy maam Cheikh Ibrahima Fall joxe bëgg joxe junne ak juróomi téeméer yëpp Cheikh Mamadou Moustapha ne ko gërëm naa la sant naa la ndax man nga ko te am nga yéene ji waaye liggéeyu Sëriñ Tuubaa ñëpp dañ ci am wàll waaye Cheikh Ibra fa sensé juróom mu joxe ko am sa tuloo bu joxe téeméeri nit sëñ Manoumbe joxe téeméeri nit sëriñ Massamba joxe Cheikh Mamadou Moustapha mottali ko ak mboolem njëmbaru Sëriñ Tuubaa ñu joxe leen ñu juróom-ñaari at ñu liggéey ko ci ñaari at ak genn wàll kon loola yoon wi war nañ ci fàttaliku ngir xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa saa su ko bëggee la Cheikh Ibrahima Faty waxoon Sëriñ Tuubaa du santaane mukk am te sant mukk lu def ndax jumaa ji Sëriñ koy santaane dafa woo ak Cheikh Ibrahima def ko jëwriñ ji woo Sëriñ ma woo Sëriñ Masamba ak Cheikh Mamadou Fadil wax leen neen dem leen ca carrière Cheikh Mouhamadou mustafa ak sëñ Balla Thior moo ne leen taxaw leen liggéey bi lépp lu ci war na ngeen ko def kon Serigne ba mu ko santaanee rek moo tax ñu def ci jom def ci yitte ba liggéey bi àgg fi tey kon yoon wi war nañ cee gën a jàngat ne lépp loo xam ne song nañ ko te am ca Pastef ndax booba ca yooyu jamono kot waxuma la ab dërëm wala tànk waaye li ñuy wax suuf kenn mënu ko am kon Cheikh Mouhamadou mustafa jàmbaar la ci yoon yu joo xam ne kenn wartu fàtte jëfam ñi ko sëriñ Tuubaa booleel woon itam ñépp dañ ko nangu taxaw ko ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne ñi ma yaakaar suñu borom dindi na ci ñoom sawaru mbañante moo tax wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ku ne sa morom gën la mooru gën moo tax bi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa sëriñ Mbàkke bu sëlam jëkk wax mooy dafa wax ne day wax suñ Modou Moustapha ne ko Modou Moustapha taaw bu am ñeent fukki at dañu ko réer te jub tegu ci yoon kenn du ko doonal bàyyi muy tegu kon kooku la ko waroon def na ko ndax moom moom la sëriñ Tuubaa santoon ne ko ndax xiblaat bi wàññi maam Cheikh Ibrahima Fall taxawaayam ci Cheikh Mouhamadou Moustapha àdduna sépp xam ne ndax ca këru njariñ ba tubaab yi wootee xamutuñ ku ñuy waxal ndax mënuñoo wax ak ñëpp te mënuñoo ñàkk ko ñu waxal ko dox seen digg ak yoon wi bañ wootee sëñ Modou Moustapha woote ñëpp ñëw Cheikh Ibra yeex a ñëw sëñ Modou Moustapha yónnee woolu ko ba Cheikh ak accédé dafa sumbi kaala gi ñëw ci Cheikh Modou Moustapha toog tubaab bi daal di wax ne la ma doon laaj jërt laaj lépp leen la ndax Cheikh bi mii ñu jàppoon moo war a wutu sëñ bi bu doxalee ñi kon xam ne ni sëñ Modou Moustapha kon ñoom li leen waroon lépp def nañ ak Cheikh Ibrahima Fati nag moom mi nga xam ne moo doon a jëwriñu sëñ bi fii ñu toog di béyti fi la woote wax ne képp koo xam ne rakkale ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne mbokk la ci sëriñ bi ña ca mag ñëw képp koo xam ne doom la ci sëriñ bi ña ca mag nañ ñëw képp koo xam ne ab taalibe la ña ca mag nañ ba ñëpp teew fii ci kër bu bayti ba muy ñëw ab baa baa buy dund la ñëw jox ko suñu Mor Moussa addiya ba ñépp teewee mu tàmbalee waxtaan wi ci ay rakkam maam Cheikh Anta mu ne ko Cheikh Anta maag yow nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ Tuubaa ndax ñun njabooru Sëñ Mbàkke Mor Anta Sali kat waxuma ab dëkk waaye xajuñ ci waxuñ xajuñ ci dëkk waxuma ab ab kër waxuma ab néeg kon nañ yaakaar nañ yaakaar yàlla te doyloo Sëñ Tuubaa kon rakk yëpp dugg mbokk yi sëriñ ma mu ne ko ma demal liggéey bu liggéey bi sontoo nga indi ko fi nga ko daa indi jox ko kon loolu mu dikk ci taalibe yi Cheikh Ibra di seen jëwriñ mu ne ko Ibra Fall waneeru yoon ndax lëndëm bu gën a metti nga amoon ko amaan na ndax ba ñëpp gëlëmee kat yaa leen gindi ci sëriñ bi lëndëm bu gën a métti nag amaan na ndax ki daa gis ba gisatu googu lëndëm mu gën a métti kon Ibra Fall waneelu yoon Cheikh Ibra waneelu yoon ñëpp jaar mu dikk ci rakk yi Cheikh Mamadou Fadil ak rakkam mu ne ko Mouhamadou Fadil yaa say rakk seen magangoo topp leen ci ginnaaw ñun njabooru suñu bàkk moo doon seen kër lu ñu topp suñ mag ñu ko may bu seen mag melut ne suñu mag nag seen mag ngeen bàyyi suñ mag ne ko ne suñ Modou Moussa Modou Moustapha say rakka ngoogu nañ topp sa ginnaaw nga jiitu li am solo nag xëccooy dëkkee ki kër amul solo li am solo mooy fexe ba doy nit ñi boo doyee nit ñi foo nekk ñu fekk la kon ñoom taxawu nañ ko bu baax ndax loolu day histoire bu mat a fàttali bu mat a leer Cheikh Maodo Moustapha itam di jàmbaar ndax dafa wax ne bi fi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa ñaan yoon wi dafa def ñaari kuréel ñii ànd ak man ñii ne tekki di xool ba xam danaa mën danaa mën a demam déet Cheikh Abdou Lahad Mbacké da ko wax da ko ne na nga farlu ci liggéey te nangoo liggéey ndax bi ma gisulu sëriñ bi kat mbooloo ma def def ñaari xaaj ñii ànd ak man ñii ne tekk di seetaan ba xam dinaa mën a demoon lépp waaye ma jël liggéey teg ko ci sama kanam weer wu ma dégg ma dugg ma ma fexe ba am sàq ba ma ca saxe ab diir nag ñëpp de seetaan ñëpp mujj xam ne kii kat ku ko topp mu dem ku ko topp mu dem ñëpp wër ba di ko topp sama ginnaaw moo ne nag bu tolloo lépp nag sàq yu fi sëriñ bi bàyyi fukki sàq yoo wàññi juróom-ñeent ba ko fukkeel maa ko jëf boo demee ci kaamil yi di wàññi fukki kaamil yoo wàññi ba ko fukkeel maa ko bind néegi defar naay néeg kon lu taalibe bi def def naa ko ba noppi sëñ bi mu jox kon nag lu taalibe bi di am war naa ko moo tax lu fi sëriñ Tuubaa fas naa ci fas naa ci teg sama loxo kon ci fulla ak njàmbaar akum xel ci la ko def liggéeyu jumaa ji nag lu maane di ci am ndax ni ko suñ borom defalem xel ni la ko defale baatin ndax ki ko jox liggéey bi kat du ko seetaan ndax sëriñ Bakk bi sa neewoon na ndénkaan loo xam ne ki la ko dénk loxoom ak i bëtam bi si jug loolu ndénkaan jafewut bi mu signé contrat ak ki ñuy wax tëlëri ñëpp dégg na histoire tëleeri dem France nangootu biir si liggéey bi yàgg sëñ Maodo Moussa indi la contrat bi wax ak beneen tubaab tëleeri porte ko pelante ba mu ko pelantee ñu di ko woo ay yoon yoon di renvoyé dossier bi lu bari ba ca bu mujj ba rek ñu woo ko Kaolack moo ànd ak way juru bu tedd ba sëriñ Gaawaan ak sëñ Moodu Moustapha Fall booba nag sëñ Moodu Moustapha jug na fees dell sëriñ Touba ba mu duggee ca tubaab yi woolu ko ba mu dikk dafa dugg rek summi kaala gi sëñ Moodu Moustapha Fall daal di ba mu agsee tubaab yi ne ko laa juñ la dara lu weesu dañoo bëgg a xam ba xam danga fayam doo fay suñ ma doon saa jël loxo bi dóor ci taabal ji ne ko ne ko du ma du ma fay mukk li ma bëgg xam mooy bu fekkee nguur tubaab nguuru France dama bëgg a daan naa ko xam tubaab bi ne kon man ngaa dem loo gis xamante man bi mu génnee am ku ne ko bu ma soñoon de nga fay ndax xamoo tubaab ndax tubaab baaxul te nii ñu la waxee de xamal lañ si kaw lañ jëm si te gis nga fi njaare sa baay kon nag fexeel ba mastaak ñoom te jéem a fay moo gën sëñ Maodo Moussa ne ko yow de xamoo Sëriñ Tuubaa te xamoo fi ma toll ne ko liggéey bii de ne ko ay daana daa tax góor dëri ñaari tànkam ci kaw suuf ba kenn du ko mën a daaneel ne ko man ak sama benn tànk bii bu moo ko dëree ci moo ko dëree ci kaw suuf bu nguuru France gépp dajale woon seen kàtt nag seen doole bu ko daane duñ ko mën bu fekkee ka ma daa far ànd nag man te sama ñaari tànk laa dër ci ko suuf kon wóor na ma li ma bëgg dina ko suñ ma dum saa bàyyi ko fa jóge fa rek gerru trente trente neuf quarante aksi tëlëri ñu rey ko dossier ba jeex kon foofu wan ne fa xel baax fi moo koy jeexale nag mooy borom bis bi di sëriñ Tuubaa dafa am benn tubaab ndax alxaqu ma shahida bihi adaw am noonu lim seer mooy dëgg ndax Cheikh Sahdou Abihi dafa seer dañ koo laaj ne ko kan mooy sëriñ Tuubaa mu ne jaamu yàlla la boo xam ne dafa sonn si ñaan boromam lépp ba suñ borom faye ko lépp tubaab bii nag mi ngi tudd sar Sarla Martel di boroom xam-xam yi gën a màgg nguuru France ministre colonie yebal ko ci Serigne Touba mu ñëw njaarim ba mu dikkee ñaan audience commandant sëriñ bi ne ko nee ko amaguma sama ndigalu boroom ba ma ñetti fan mu ñëw ba mu dikkee toog sëriñ bi ne ko mu ne Serigne bi damaa ñëw ngir waxtaan see yow Serigne bi ne ko bismillah mu ne ko dama lay laaj. ndax xam naa ne li yàlla sàkke ci nit ku ñuul yaa ci ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko xaakasa mu ne ko man itam mboolem lu yàlla sàkk ci nit ku weex maa ci am ëpp xam-xam sëriñ bi ne ko ak nit ku weex daal di tàllal jëmmam kon sëriñ bi bu xam boppam mu ne ko dama lay laaj loo xam ne dama bëgg li nga may tontu lépp di dëgg sëriñ bi ne ko man du ma wax mukk lu du dëgg mu ne ko mboolem yonente yi laa bëgg a xam seenu lim sëriñ bi na ko fàq kaddu mooy téeméer junni ak ñaar fukk ñeent mu ne ko yonent yi yàlla wàcc ay téere ñoom ñaata la mun ne ko sëriñ bi ne ko juróom muy lim ba àgg ci yonent yàlla musa tubaab bi ne ko yonent yàlla Moussa du ab yonent sëriñ bi ne ko kàcc nga inter bi interprète bi daal diddi den ko sëriñ bi baamtu ko ne ko waxaat ko ko ñemewu ko diddita fekk sëñ Masamba ko mu ne ko Masamba wax ko ne ko nee ko kàcce nga sëñ Masamba wax tubaab bi datti sëriñ bi ne ko fii ma toog de suñ borom ci kattanam def na ma léegi may yonent yàlla Moussa def la it ngay xaaroona mu ne ko waaye xaaroona boo ko Moussa alagee suñu borom teg na ko ci ay daan ndax yedd na ko ci mu ne ko man suñ borom fàddu na ma ay daan sëriñ bi na ko Masamba li gën a gàtt ñëw a làqu ci sama ginnaaw léegi nga waat ko léegi suñ borom mëdd la ci kaw suuf tubaab bi daal daw loolu tubaab bee ko bind ci RC kon sëriñ Tuubaa li ko suñ borom defal mosu ko defal kenn kon yàlla na ñu tàbbal ci add xaltu nafsi wa jamiha ahli fii jëy bi afdali wala bil fadli te waxoon na ne mboolem ku ma yaakaar rek tabbi nga ci sama demir mutakallim bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kàddu yi ma yónnee rek ñett nuyu ak ziar ñaareel bi cant ñetteel bi sax ñaan nuyu boog ziar bi ñu koy tàmbalee foofu war a tàmbalee lu sëñ Mountakha Bassirou ñu fi sëñ Touba tey di ko ñaanal bu yàgg te wér

muy xalifa sëñ Sidi Moxtar ànd ak waa commune bi képp gis naa Cheikh Bara Lat gis naa Cheikh Thioro ñoo ngi ci nuyu sëñ Aliou Mbacke ci ci dóoti di nuyu sëñ Abdourahmane Mbacke mi fi nekkal tey Gaynde Fatma di nuyu sëñ Ndiaye ambassadeur di nuyu sëñ Moussa di nuyu sëñ Oumar di nuyu sëñ Abdou Bali Mbacke di nuyu daal njabootu sëñ Mamadou Moustapha képp ci sët yi nuyu bi dañ ko yëkkati jox ko sëñ moom sëñ Mbacke soxna Lo jàllale ko ñoom ñëpp. di nuyu itam kilifa yi diine yi nekk ci tànn te ñooñu boo ci limee ñaar ñëpp seen xol war na cee moom teew na fi ci jëmm waaye teew na fi ci yokk xel yi ndax li wax sëñ Moustapha loolu ku ne mën na cee yokk sëñ Bassirou xam nga xam aussi li nga wax léegi. yokk ko suñu xam-xam yokk ko suñu yaakaar yokk ko suñu doylu ci li xamante ni ci sëriñ Mouhamadou Moussa di yi fi teew yëpp nga xam leen war a fàttaliku ñi fi nekkan te nekk duñ fii te leen war a fekk ñooñu ko ci jiitu mooy sëñ Sidi Moxtaar ndax waxtu wi daaw fu ñu ci dajee nga fàttali ko fa man nag dama koy fàttali dafa am lu ma jàng ci bi xaw ma woon sax waaye moo ma woon saa bu ma nekkatee Sénégal guddi gi sëñ Modou Moustapha gi boo ko mënee na nga man am na ma ci woon nekk sëñ ma sànni jot daanaka ne fanaan ne ñaari ma ne tax te ci loolu laa fas yéene fàttali ko itam fàttali ko sëriñ Abdou Fatah ndax kër gi la ko fàttali ko sëriñ Bara Dolly la bokkoon te ñaanal ko ñu ñu jiitu yëpp fàttali ko te wax bi mooy cant bi moom président yi cant bu wér la bu sincère dugg ci moom ndax dégg naa seen laaj ni man du ma sant ma def lu dara président bu sante waa Daaru Xuddus dañ koo defal féete ko lu tax moo leen sant ndax waaw daal dafa ci njëkk ko gëm la ko njëkk jàppale la njëkk koo ñaanal njëkk koo gëm njëkk am yaakaar ci moom fu muy réew te nit nag ku ko wutal la ko gëm mu rànkee buy sant war la bu dee gor war a naa leen ko jekk jekk biral yaakaar ginnaaw yéen a ko jàppale di ko ñaanal ba mu egsi fii jàpp nañ bu nekk continuer ñaanal li ci réew ñaari ñaan balaa moo ñaanal ko nee ngir ñaanal ci réew mi jàmm am fi dal am fi xel yi yokku te lépp lu ñuy def lu jiite suñu xel te bañ ci jiital suñu xol te ku ci nekk jéem a nekk ci la la wér nee na loolu ngeen ñaanal ko ko ba mu am ci réew mi moom ci wàllu boppam ngeen ñaanal ko ba mu am nekk ci diiraay nekk ba nga xam ne li mu yéene ci réew ci lu baax suñu borom may ko mu ko mu e. e lu mu jëf ci loolu lay dem dëkk bi nu nekk jëf na fi loo xam ko xool xam ne yéene ci réew lu baax donc ngi ñaan ñaan loolu ñaan nag boo koy def da koy def fa nga ko yaakaar fa ñu yaakaare ni bu ñu ñaanee su boobu nag li tax li tax ñuy màggal tax ñuy màggal bu ñu na yaakaar ni su boobu wax nañ ko ndax sëñ Modou Moustapha moo jële sëñ Touba indi ko Touba loolu am na solo waaye dama ko defee moo gën a am ndax nu mu ko bëggee woon ak ko digalee noonu def na ko ci teggin kenn yëgu ko lépp lu ko war a laal laal loolu ñu koy màggale boo fa demee boo fa ñaanee suñu borom mën naa nag lii moo tax ma xam li tax sëñ ko ndigal li ma jiitu la fekk Sénégal yi nga mooy sëñ bi doon ko jafe ko jafeel 1998 nga ne ak ñoom sëñ Touba génn ñu ngi faa loolu boo ko xool depuis 40 ans ndax ñeent fukki at ñu la wóorul tool sëñ Touba loolu yomb wala bëree bëri bi ñu ne sëñ Modou Moustapha la dañoo am daal taxaw loolu mooy première jafe-jafe deuxième jafe-jafe bi mooy contexte li ñu wax naan jamono dafa xew ndax booba administration coloniale boobu dafa koy wax te tubaab ñëpp xam nañu yéene wu sëñ xëy na sax boo seen boo gaawee da nga li sëñ bi doon jàng ci loolu moo gisoon nañu sëñ bi mi ngi jàngal nit loolu nag la tubaab jël ñu jëm ci sëñ bi lim fi nekk lépp lépp lépp ba xam ne mënuñu ko nekk mënuñu ko def ñu def li ci wax naan moom la échec ñu ne ginnaaw nag laaj nañ ci moom nan bàyyi ba mu jóge fi ñu def ci njaboot bi loolu nañ ko def njaboot bi li ñu daan diviser bu biir réñee loolu la ñu tàmbali ci biir njaboot bi maanaam di leen réew ni ñu war a ànd bu dee fi loolu tam bokk na ci li sëñ bi wax jëf li mu ko fi jëlee mooy boole ñu war a boole ñëpp li tubaab na rassemblé na dajale na ñu bokk sëñ tubaab ñëpp ku ci nekk na la bokk fi Cheikh Bass mi léegi doy yi sëñ tubaab bàyyi woon dañ wax ko boolee na leen ci waajuram borom daam boolee ci kilifa yi diine Sénégal yëpp lu mas di wax lu ne wala mu koy discuter ñoo ci ñooñu la ci waxtaanee lii moo tax li def ginnaaw suuf tubaab ndax ñu war a am ñu àndee ci la ñëwee ci ci réew mi te gis nañ si jumaa ji Cheikh Bass na lépp ndax jumaa ji itam bokk na ci li ko sëñ Tuubaa sasan gën a bay ndax li tax mu gën a jafe bay boobu tubaab yi ñoo fi nekk ñoo jox autorisation yi conditions yi ñu ko tegal ci Abbas wax na bu ci gënoon difficile mooy raay waaye nag amaatoon na beneen difficulté difficulté mooy financement jumaa ji maanaam fu ñuy jëlee lu ñu ko liggéey loolu itam nu mu ko defee mooy dafa dem bu ci ay daara yóbbu fa ay dongo di leen jàngal liggéey hectare daara yooyu mën nañ ci cité Taïf ak Bayla am nañ wax sax ni li ëpp ci li liggéey jumaa ji jaare daara yooyu liggéey waaye mën na daaru nawet ak daaru ñaaxeen ci Mbàkke donc loolu aussi lu sëñ Modou Moustapha wane la ci wàllu organiser nit ñi liggéey loolu ñu konte ci seen bopp pour faj seen soxla te loolu bokk na ci li tax jumaa ji am tey li tax raay bi am donc xew yi ak ki tax mu xew fu mu xew ku ne boo xamee ñaan nga yaakaar def ñaan nga am loolu la président xam yaakaar ko doyloo ko moo tax te yaakaar nañ bu ngeen ko ko ñaanalee den am te li mu ñaan réew mi la ak bopp réew mi mooy jàmm am fi boppam mooy mu nekk ba yi daal la président ñoom bu ñëwee naa ko wax lu ci dëng ba ndax moom bu sañal ñëpp ñëpp dégg ko ni ko war a dégg maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaamaaleykum mi ngi ci sëriñ Moustapha Diaté ni ñu ko war a woon léegi ci tàmbali bi kon commencé ñëw ba kàddu sëriñ bi bisimilah. bismillahi rahmaani rahim inna waliyallah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa mboolem ñi teew ñëpp ci ko tàmbali sëriñ Bachir sëriñ Moussa moom sëñ ngi bind ak mboolem mbokk yi fi teew ñëpp bàyyiwuñ kenn mu ne sa limal na ñëpp waaye day am ñoo xam bu ñu leen tuddee nañu nit ñëpp ndax mbooleem mbokk yi teew njabootu sëñ Muntaxa lañ sëñ Muntaxa moom it sëñ Mouhamadou Bachir moom sëñ Abdoul mu ñëw teewal ko fi dina fi jëmm kon mbokk yi nañu dugg ci biir sëriñ bi wax ne mi ngi nuyu ñëpp te di leen gërëm te di leen sant. gannaaw moom sant yàlla mi ko bind te ko rasulullahi sallallahu alayhi wa te yaakaar naa ko sëriñ Tuubaa defal ko toog fii sëñ Moussa di way juróom gannaaw bu leen santee ba noppi cant gi mi ngi jiital sëñ Mamadou Mountakha mi jëmmi sëñ Tuubaa ci kaw suuf tey di ñaan yàgg bi lool te ànd ko wér te ànd ko xelam ba ni mu yéene liggéey mu mën koo liggéey ni mu ko bëggee te ñaan ko moom sëriñ gërëm na ko gërëm loo xam ne day am na fu mu tàmbalee waaye yëmul fenn ngir barki dem ba léegi ngi ci kër gu mag gi jàppale ko ci bis bi jàppale ko ci guddi gi di ko di ko ci gunge dalal na am xelam dolli na yaakaaram moom jabar gi yaakaar seen musuwaay yëpp ndax loolu waaye fut bu rëy la ndax nit su amul lu leen te bokk koo yow nga wax ko ne ko leen bokk maa yow ànd di ko def seral nga am xolam dalal nga am xelam kon nag nee na jërëjëf sëriñ Mamadou Basiir nga wax ko sëriñ bi ne ko sëriñ Amadou Moxtaar ne moom njabootu Seex Musaa gépp ak njabootu seex Mamadou Lamine Bara gépp ak njaboot gi ak ci kër gi di ay seex te kenn ku ci ne teraanga ñu yor Sëñ Tuubaa joxoon ko samaam ñoom ñëpp maase nañ jébbal ko seen bopp di ko sant te di ko gërëm te di ko bëgg ngir nit la ma amul dudul moom soo ko wanee na ko lam naa ñore ngi la ma ñore nga ànd ko moom di seetloo ko dara ci bokk yi ni féew kon nag neen sëñ bi ne jërëjëf la ca dolli ko moo di njaboot gi mu sëkkal kër gi tàmbale ko sëriñ Cheikh Madina ba sëriñ Moussa moom sëñ am sëñ Macky ñi ci diggante ñëpp ay waajur yu lañ moo ki rakkam sëriñ bi nee na gërëm na leen sant na leen fañ war a féete ba lépp jàkk féete nañ fa kon nag mi ngi ñaan ki defal seen biir bay mën a jagal bis yàlla doon dimbalam ci ñoom te wéral leen te yàggal na fi te dara bañal gàllankoor njaboot gépp la wax bawul kenn la ca dolli ko moo di mi ngi sant meeru dëkk bi ak autorité yi ma àndaloon doon doxal liggéey bi ba agsi fii ñu agsi te dara gàllankoor wu ci sant na leen mu tàmbalee ci gouverneur ñëw ci préfet ñëw ci sous préfet ñëw ci maire bi ak conseil sëriñ bi ne ngërëmam ci yéen mat na sëkk ndax la bëggoon lépp ci taxawaay demeen ko ba mat sëkk kon yàlla yàlla jagal seen lépp mu ñëw nag ci ñi nga xam ne ay parti lañ yu fi ñëw séance bu ngi bis bi mi ngi leen sant di leen ñaanal ngir nit la ma am dul moom da loolu di itteem soo ko wane ne ko ittee woo naa ko du man lu gërëm la ak sant la seeni tur ma jaay gannaaw tuddoon na leen léegi ñoom ñi fi ñëw ñëpp bàyyi wu ci kenn sañ gën a jël gën jox sant leen mi ngi leen di ñaanal di réew mi saa borom def ci ku ko mën a bëgg ak ku ko mën a yor na ñëpp maas sàkku ci jàmm wut ko te di ko jëfe mooy tax jàmm ndax lu waay di wut am wutoo ko ci jàmm soo ko amee du la mbaa doo am kon nag ñëpp sax ci jàmm te ñaan jàmm te sax jàmm te di ko ndax jàmm ci la lépp xaj mu wax ne sëñ maam Thierno Dieng yaa mboole ministère yi yu góor yi ak jigéen mi ministre conseil yi ak délégué yi sëriñ bi ne mi ngi leen di yónni ak cant ci ki leen fi yebal gannaaw bu sant yéen ñëpp ci kenn ku ne yëg koo ko jox ak sa jëf jooju di ci moom ngir jàpp ci bi te kenn ku ne jigéen yéen la nga man ba di ko jàppale président moo la ko jox nga ñëw fi sa jëfi bopp ñëwal fi président nee mi ngi leen di yónni ci président ak cant ak ngërëm ngir li ko war ci bis bi ci taxawaay ak ku yëg def na ko ba mat sëkk li ko war ci ak yëg ci jëwat amusuwaay def na ko ba mat sëkk ndax ñi fi takkal ndombay tànk te dëkk ci kër gi xam na leen te mu koy def jàppale kër ga ndax di ko def si loolu moo ko tàmbalee ak seen bàkk soxna loolu mooy ba agsi bi kon sëñ bi ne mi ngi ko di ko ñaan jàmm di ko ñaan ci ab sëriñ ñaan la ñaan gi ma nag mi koy ñaan ngir saa borom def jàmm ci réew mi fi talaaka ju sax gërëm na ñëpp sant na ñëpp li nga xam ne mooy waxtaan wi mooy jëmmi sëñ Ahmadou Maxtaar mooy jëmmi sëñ Moustapha sëriñ Cheikh Mbacké Madina nag ci njaboot bi sëriñ Cheikh Aliou ak sëriñ Abdourahmane ak seen rek topp ci mu wax ne fañ ko war a fii def nañ ak sëriñ Moustapha mii di ab sa tey jawriñ kër mi ngi leen sant di leen gërëm ngi ñaan daal jàmm saa war a def moom nag nee na mi ngi xamal ñépp ne dafa am kilifa topp ci gannaaw kilifaam yorul baat dañ ko yëri kilifaam ngi nii toog ne fab na lépp ak ci waaye ñaan moom sañ ci day seen Mustafaa saa borom da jàmm ci réew mi Cerno sëriñ nga santal ko président ñaan la am mi ngi ko ñaan yàlla yàlla da jàmm ci réew mi Mustafaa jërëjëf Amin ya Rabbal Alamin Amin. Amin.